Ils ont commencé les tirs. Les jeux de lacrymogène ont démarré. waaw cooli ya, tàng tàng am na ku ñu jàpp waaw y une arrestation waaw amna na ku policiers yi jàpp de l'autre côté ñu koy bëgg a dañ koy bëgg a yóbbu waaye population bi nangul population bi nangul voilà nanguñu ñi nanguñu gars yi mbir yi démarré na waaw biñ naan problème yaa ngi démarré vous avez vu des tirs